Parce qu'après le, combat, après le, le combat, on a eu à constater, à travers la presse, euh, beaucoup de sorties yoo xam ne vraiment vraiment milité wul te du ay information yoo xam ne information yu baax la yoo xam ne war nañ ko baaxee les amateurs ak sportifs yi en général mu doon loo xam ne li presque genre discrédit la ci vraiment le nouveau roi des arènes muy Modou Lo euh, donc question bi nga xam ni moom la ñuy posé wu mooy Modou euh, depuis dimanche nekkul le premier roi des arènes je crois savoir que Modou mooy septième roi des arènes ci période bi ñu toll et avec le meilleur comment dirais-je le meilleur palmarès si ñi nga xam ne ñi nekk nañ ci roi des arènes yëpp je pense que dinaa décliner et les raisons yi tax je l'ai dit donc actuellement euh, Yékini bi nga xam ne bii durée d'invincibilité je pense que kenn du ko contester ci roi des arènes je pense que damay dugg dans les détails Yékini 19 victoires la am je pense que yéen a ngi ak seen machines yi yéen a ngi ak seen calculettes yi benn nul ak deux défaites je pense que ça c'est clair Bombardier bi nga xam ne bii moo ñëwaat Bombardier 18 victoires la am ak 8 défaites. je pense que loolu aussi kenn du ko contesté Balla Gaye am na 21 victoires mais am na 4 défaites te 4 défaites yëpp ñeenti lutteurs ñoo ko daal ñetti lutteurs plus parce que ëmb daal na ko ñaari yoon et puis ak deux défaites am yi bon Tyson 11 victoires la am ñu fi jaar roi des arènes laay cité donc onze victoires la am ak 6 défaites. bon Eumeu Sène bi ñu doon roi des bi ñu doon oowee roi des arènes avant avant Modou dix victoire la am deux nuls ak sept défaites donc am na ñu ñuy wax ay VIP mën naa gis ñoom muy Lac de Guerre 2 treize victoire la am deux nuls deux défaites ak benn sans verdict bon bu ñu ñëwee ci Gris Bordeaux parce que on parle des VIP mais ñooñu mosuñu sax nekk roi des arènes je pense que mën naa ci bañ a appesanté mais mën naa leen wax rek parce que douze victoires la am neuf défaites Ama Baldé bi ñuy wax naan mu ngi bëgg dugg si te ak seewul treize victoires la am deux défaites Tapha Tine treize victoires la am cinq défaites tenez-vous bien bu ñu defee ay statistiques mais Modou vingt victoires la am. ci carrière bu gàtt bi période bi mu commencé ak période bi ñu toll te te ne am na ñoo xam ne ñi tey lim naa leen mais actuellement ils sont à la retraite Modou à vingt 20 victoires 3 défaites ci deux lutteurs parce que Balla def ko daan deux fois ak benn nul ak te nul bi xam ngeen nu mu demee donc je pense que actuellement bu ñuy def. ay statistiques kenn gënu ko mérité roi des arènes ci période bi ñu toll nii si on voit que à travers la presse ñuy génne ay déclaration di wax par exemple euh, un Yahya Dial peut être roi des arènes ça c'est pas sérieux ça c'est vraiment pas sérieux parce que Modou dafa reyante pour nekk roi des arènes c'est pas un hasard que Modou nekk roi des arènes parce que tout le monde sait qu'actuellement du vraiment il fait partie des meilleurs rois des arènes à travers son palmarès donc tey j'ai même entendu dire que le président de CNG a dit que roi des arènes euh, gagner benn combat nekk roi des arènes c'est pas ça Mais ça, c'est une, une déclaration qui date de sept ans, au moins. kenn du ñu mettre en mal avec le CNG. Parce que xam nañ nous qui fait déclaration, boppam sait ne du déclaration, c'est une déclaration récente. L'histoire est là. Tout le monde sait que, tant que Alun Sar wax affaire boobu euh, amoon na ci sax un problème ak un lutteur c'est pas la peine de citer des noms mais tout le monde sait que déclaration boo xam ne bi sa fait plus de sept ans peut-être am na waxaat na ko ça fait trois ans quatre ans mais combat bi Alioune Sarr n'a même pas fait de déclaration donc mënuñu jël rapport boobu di ko indi ci roi des arènes bu bees bi ce qui fait que ñun vraiment on est un peu vraiment déçu d'entendre certains trucs dafa mel ni ndëkk roi des arènes nu Modou dafa am ñu mu gêné mais ñun loolu vraiment am na benn France boo xam ne bii gêné leen te amuñu benn région objectif boo xam ne bii war nañ ko mën a wax pour wax ne Modou nii wala Modou naa parce que même classement FIFA je pense bu ñu koy def si performance yi la ñu xool et je pense que tey bu CNG doon reprendre les trucs def des statistiques mënu lay jox roi des arènes même bu daanul Eumeu Sène parce que ça je pense pour man amoon mon avis à mon humble avis que vraiment bu ñuy xool tey yaa ngi dégg euh, Modou parcours am ak performance am je pense que il fait partie des meilleurs rois des arènes bi nga xam ne bii tey actuellement moom làmb ji di vivre je pense que vous êtes tous des journalistes sportifs am ngeen statistiques yi ma leen di wax je sais que yéen ma ko gën a xam mais il faut que ñu juger lu nekk ak ñu doon donc période bi ñu toll euh, dafa dafa war a euh, dafa war a euh, dañ toll ci vraiment leeral à tout le monde ñun nag on en veut à personne ku nekk tu libre nga def sa analyse ku nekk am nga droit wax lu la neex mais ce qui est constant mooy que le vrai roi des arènes actuellement c'est Modou vu période bi mu def ci làmb ji vu nombre de combats yi mu am vu ay victoire am je pense que amul kenn koo xam ne kii ëppale nga ko ay victoire ou bien boo ko kenn moo ko fi ëppale benn victoire muy Balla Gaye te Balla Gaye quatre défaites la am donc je pense que tey bu ñu doon xoolaat affaire yi je pense que bu ñu doon def classement wu lutteurs yi Modou Lo mooy nekk kenn mënu ko jël de premier bu fekkee ne rek dañuy doxal dëgg rek donc loolu moo tax tey je me suis permis de vous appeler pour ñu def ay clarification cité wu ma kenn tontu ma kenn nag mais dañu bëgg leeral li nga xam ne lii moo am parce que vous êtes des journalistes vous êtes appelés à communiquer donc yaakaar naa ne bu ngeen defee seen statistique je pense que am naa journal bu ko gis vraiment dañuy assurer ne ça c'est le vrai roi des arènes kenn mënu ko contester donc euh, lenn rek moo ñu si kii aujourd'hui tey dañu sant yàlla bu baax a baax sant yàlla en ce sens que Modou ça fait presque neuf à dix ans dafa promettre woon waa parcelle indi leen roi des arènes ñun ñu koy accompagner mu promettre ñun dinañu indil roi des arènes ñu sant yàlla bu baax a baax a baax nag bi mu ñu ko indilee jox nañu ko vraiment euh, xam naa ne nag ñun comprendre nañ ne roi des nu Modou am nañu mu seenee mais ça amul importance du loo xam ne lii ñun dañ ci taxaw je l'ai toujours di et je le répète Modou Lo palmarèsam amul benn lutteur tey boo xam ne bii di nga ko revendiquer fii ci Sénégal amul mënu la ne bu fekkee nekk na vraiment ñu leeral ma ko CNG am nañu droit depuis ça c'était en 2012 je pense si je me rappelle bien cette déclaration de Alioune Sarr 2012 la woon waxaat na ko en 2015 mais combat bi il n'en a même pas parlé bi euh, euh, Eumeu seen nekkee roi des arènes il na a pas parlé ak keneen ak keneen mais si des journalistes se permettent di ñëwaat mu mel ni dañu am un lobby boo xam ne bi dañ ko bëgg a teg pour décrédibiliser Modou mais ça ça ne peut pas passer c'est c'est ça la réalité donc loolu moo tax ma woo leen en conférence de presse waa des arènes vu son palmarès vu le nombre d'années qu'il a fait reyante bi mu reyante tout ce qu'il a fait pour décrocher ce titre vraiment bu ñu ko remercier wul bu ñu ko kiiwul vraiment buñ ko félicité wul waruñu toog ci presse bi di décrire aller jusqu'à dire que vraiment Yawou Dial peut être roi des arènes ça c'est pas sérieux comme déclaration parce que kii pakastaluwul pour nekk roi des arènes de haute lutte la ko décroché te tout le monde sait def daf ko mérité te ñuy wax yépp ñu ngi dégg les réactions yi nga xam ne yi tey les internautes ñu ngi koy def pour dire que y a des choses yu nga xam ne vraiment bokkul ci lutte Modou rayante na am na ko nañ ko félicité je pense que loolu mooy rôle nit ñi mooy rôle presse bi mooy rôle sportif yi parce que nit da ngay sportif tuuti vraiment merew kenn nag parce que euh, olof day wax ne ku xaj ku ku ku naka ku ku voilà loolu mooy li nga xam ne ni mooy li am dañuy sant yàlla ndëg bu baax a baax li sant yàlla bu baax a baax di leen remercier yéen ñi nga xam ne ñi tey vraiment ñëw ngeen tey pour jël suñu déclaration bi te vraiment làmb rek di seen métier euh, vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax loolu daal mooy li nga xam ne li tey mooy woon mais situation bi actuellement actuelle parce que Modou bi mu nekk roi des arènes amul benn lutteur boo xam ne bii période bi ngay jël roi des arènes am nga performance boobu c'est ce qui fait que c'est ce que nous fait dire c'est-à-dire ça c'est de manière ramassée rek pour dire exactement ku ne fan nga toll actuellement parce que ñenn ñi déjà dem nañ à la retraite mais ñoom période avant ñuy dem retraite période bi ñu nekk roi des arènes amuñu woon noomu de victoires yi moo du am ce qui fait tey loolu moo indi vraiment ñu wax ne c'est ça j'ai dit que déclaration Alioune Sarr c'est une déclaration qui est antérieure à ça Alioune ba ma koy wax nee naa la ça fait c'était en 2012 si je me rappelle bien 2012 la Alioune Sarr waxoon affaire boobu on est en phase nu roi des arènes donc tey day indi ba neen amalgame mu mel ni Alioune Sarr si làmb ji bu mu paree dafa def déclaration te loolu ça n'existe pas loolu lañ doon leeral parce que euh, affaire CNG je pense que ñun tey ñëwuñu sax pour citer benn organe benn structure ñun li ñu intéressé mooy période bi nga xam ni foofu lañ toll donc ñun en tout cas euh, ñun dañu dañu jàpp ne Modou Lo dafa mériter son titre de roi des arènes boo xam ne bi am na ñoo xam ne ñii tey mais ñu koy ñu koy ñàkkal fayda tey ñi nga xam ne ñi jaar nañ fi yëpp ñu naan leen roi des arènes mais je veux dire que mais gënuñu palmarès Modou Lo ci làmb ji donc je pense que ce qui est important c'est ça c'est pas que kii amoon na douze victoires amoon na non non loolu amul importance ça c'est des trucs yu nga xam ne rek dañ koy dañuy fàttalinte rek loolu moo tax on a cité tout ça mais di jël roi des arènes ak durée bi nga def ci làmb ji avec vingt victoires je pense que tu mérites amplement ce titre sens boobu la ñuy waxee mais defuñu benn comparaison boo xam ne bii kii na donc vraiment je vous remercie si affaire boobu. Euh, démarré ah euh, Ama Sène nekkagul si euh, Ama nekkagul si plan wu Modou parce que accès gul si Modou Lo d' abord donc je pense ça c' est clair depuis daaw wax nañ leen ko Ama àggagul si Modou Lo mu ngi forcé nag parce que bëgg na bëri ak Modou Lo coûte que pour le moment nii mënagul a bëri ak Modou Lo Modou Lo jëlul combat wu Ama Baldé pour le moment pour que ñu couleur ce débat ku nekk nag am nga droit ne dama soxla Modou parce que ñun on sait tey en tant que roi des arènes ku nekk ambition tey mooy bëri ak Modou Lo ça c'est clair te loolu mënuñu ko bañ mais Ama na xaar na continuer liggéeyam ba accès si Modou bu boobaa Modou Lo dina ko jël bañuñu ko bëre bëriñu bëre ak moom nag parce que ñu ala kulli al Modou moom dina bëri ak Ama moom tant que ñu si arène ndax ay morom lañu ay nawle lañu te Ama aussi kenn mënu ko bañ si làmb mais nag làmb dafa am hiérarchie boo xam ne bii dañ koy respecté buñ ci tolloo dina ko may chance pour mu bëri ak moom mais pas pour le moment. beneen question bi. plan wu Modou Lo euh, euh, je pense que euh, actuellement période bi ñu toll nii plan wu Modou Lo mën nañu ko dévoiler pourquoi parce que. déjà dafa amoon plan de carrière bu ñu ko tegaloon ça on l'a toujours dit même quelquefois maa ngi dégg sax ñu naan dañuy dañuy jël ay contrat noonu pour am xaalis dégg naa ko ñu koy wax mais loolu intéressé wuñu tout le monde sait que il fait partie des lutteurs yi gën a professionnel ci làmb ji parce que ñun dañu nekk ak moom xam ni ñuy liggéey ak moom depuis le début gis ngeen ne toujours bu ñuy jël automatiquement dañuy jël combat benn combat rek lañ jël par défaut mooy contre Balla Gaye parce que booba Balla Gaye n'était même pas notre adversaire mais pour éviter année blanche bi il fallait que ñu jël ko parce que aussi ñoom làmb mooy seen liggéey il fallait que ñu jël ko mais ñun suñu cible c'était Eumeu Sène vous avez vu que aussitôt après Balla on a signé Eumeu parce que ñun moom moom mooy plan bi nga xam ne moom lañ ko tagaloo donc nit ki bu ko tagalee plan mu dem ba nekk nag vraiment atteindre objectif bi nga xam ne bi moom lañ ko assigné woon léegi li des mooy re toogaat nag xool exactement parce que tey ñun ñu aventurer wu ne diw la ñuy jël diw la ñuy jël parce que ñëpp ay mbër lañu Modou Lo war na mu mbëri ak kenn ku ne tey ku nekk ci arène bi koo xam ne kii tolloo nga ak moom donc mais actuellement je ne peux pas de vous dire que diw mu ngi ci plan kële mu ngi ci plan fi mu nee nii dañ tollu si vraiment noppalu parce que benn année bi nga bëri si ñaari combat jóge ci Gris Bordeaux dem ci Lac de Guiers jóge si Lac de Guiers dem ci ci bon vraiment je pense que dafa tollu ci noppalu toog nag à tête reposée mu xool ak staffam hmm, ak ay techniciens ñu xool exactement fan la ñu war a mën a orienter Modou je pense que pour le moment amul lu muy bañ ci làmb du amul lu muy bañ ci làmb CNG moo jiite làmb bu fekkee dafa am lu moo xam ne bi daf ko décider on est obligé de l' accepter ñun ñooy actuellement roi des arènes bu ñu demee ba ne dañuy xoolaat titre de roi des bi nan lañ koy doxalee par des tournois ou bien tout ça mais on va accepter ñun exclure ñu benn mbër pour bëre ak moom. Euh, exclure ñu benn mbër bu bokkee ci kii bi tournoi bi Ama c'est sûr que du ci bokk je bu ci bokkee dinañ boobaa kay on est bu ñu ko tirage joxee ñu bëre ak moom loolu koy kenn waxatu ko. mais Ama ñu doon dox combat ak ak ak yeneen VIP yoo xam ne moom lu bëri woon na ak ñoom que bu ñu ko doon woon na ak ñoom ba dépassé leen. non maanaam adversaire yoo xam woon na ak ñoom ba dépassé leen il faut mu leer. parce que dafa am xam nga euh, il faut que ñu nangu ne làmb dafa am hiérarchie dafa am ku nekk fi nga toll niveau bi nga toll waaw parce que Gris Bordeaux dafa jóge ci ay défaite ñu koy dox kombaam ak Ama mais c'est normal c'est logique mais Modou tey jógewul ci défaite dafa jël titre roi des arènes yaa ngi dégg dafa am ñoo xam ni ñoom la war a mën a bëree mais bés bu CNG d'accord defee ne day def kii kay mais kooku on est obligé. bu ci dugalee Ama da ngeen ci dugalee yaawu jaal sax ñu bëreeg moom. benn adversaire je pense que jarul ñuy kii la mën na nañu bëreeg moom saa yu ko kiiwee buñ ko heure bu ñu waree bëreeg moom je ne sais pas je ne pas savoir mais pour le moment nii man mënu ma xam kañ la bëree mais Balla xam nga ne day yàgg rek mais fu ñu bëree ak moom. loolu mënul ñàkk. très bien très bien. a mën solo parce que seen daf question boobu dafa mel ni yéen ñii laa ko war a laaj. yéen journalistes yi commentaire affaire yi. d'ailleurs nëpp la jaaxal. loolu moo indi conférence de presse bi parce que loolu lañ mënul a comprendre. c'est une question bu ma leen di renvoyer yéen ñi nga xam ne ñii tey vous êtes des analystes sportifs et yéen a ma gën a xam lu bari ci làmb ci loolu yéen lañ ko war a laaj parce que ñu fi jaar ñëpp jël nañ ko peut-être que avec Yékini amoon na ay coow c'est vrai parce que Alioune Sarr def na déclaration moo am ay coow ma koy nuyu au passage di suñu modèle moom Yékini et tout bon euh, vraiment euh, mu am ñu fi jaar ñëpp am na ay wax rek mais coow li ni mu amee nii je pense que amoo ko. non dafa am ñoo xam ne ñii rek waaw non peut-être am na ñoo xam ne ñii peut-être affaire bi neexu leen rek c'est amul leneen amul leneen y a pas autre chose neexu leen peut loolu moo tax ñu def si comme autant de commentaires mais c'est un c'est un fait réel. que ñëpp d'accord nañ ne coow li coow li li ko gënee indi bokk na ci li ko gënee indi mooy Modou Lo c'est le seul roi des arènes bu éri euh, euh, aussi est que jàpp nga ne li yéegi ne amul Tyson amul ko Bombardier ji amul ko Eumeu Sène amul ko Balla amul ko est-ce que Modou Lo mën na ko am mooy doon roi des arènes ñi ñëpp ne boobu est-ce na loolu koy mënul nekk mais c'est-à-dire commentaire yi ni mu demee fii mosu ko demee mosul demee nii il faut ñu reconnaître ne actuellement depuis lundi li génn ci presse bi nekk na loo xam ne li masul am ci làmb doon nañ ko waxtaan nii rek et puis entre deux tout ça et puis on avance quoi mais actuellement nii coow li li mu indi si roi des arènes amul lan mooy défaite humiliante da nga bëri ñu daal leneen ñu repartir ñëw défaite défaite roi des arènes bi moo gën a humiliante waaw mais donc je pense que loolu amul importance titre roi des arènes depuis boobu ba léegi ku daan roi des arènes ñu jox la roi amul leneen nga jóge si deux défaites sax ñëw gagné roi des arènes yaa ngi dégg roi des arènes bari na ñoo xam ne ñi jóge nañ ci défaite pourquoi lu tax nga wax loolu. mais loolu amul automatiquement défaite défaite la nga am ko tey ak nga am ko démb boo amee tey gi dimanche bi passé nga bëri roi des arènes gagné ko yaay roi des arènes. bu leen soofal suñu roi des arènes loolu mooy wax. ça c'est ne pas comprendre. waaw non yow bokk mais yow bokk yow bokk non non non il faut il faut que l'on analyse loolu loolu mais am na ñoo xam ne ñi dañuy toog deux ans du ñu bëre ñëw jël roi des arènes merci loolu moom mooy mooy loolu mooy li constant loolu moom kenn mënu si dara loolu am na. mooy dañu gis généralement ci événement yu mag waaw bëri bi soudaanee. Mhm. ci plateau bi. waaw gis Modou bëri ba pare ci plateau bi. ndax loolu loolu waxtaanee la mm. la consigne la wala non c'est-à-dire ah. c'est-à-dire. Hmm? bon bu dee par exemple bi mu bëree léegi waxagul tout mone monde dafa am disposition contractuelle yoo xam ne yi mooy am toujours entre le promoteur ak les lutteurs par le canal de comment dirais di manager dafa am dañ ne aussitôt dañuy def face to face mais période boobu tout le monde sait promoteur bi ak ay euh, sponsor am ñoom ñoo am tey pour vraiment affaire communication yi donc peut-être loolu rek la loolu rek la mais man bu ma waxee dafa mel loo mel ni Modou Lo wax na loolu moo tax j'ai même averti l'autre là Moustapha Diop pour lui dire que damay def benn point de presse mu ne ma kan yow wala du ma nekk man mu ne ma bon ça va y donc man je pense que mais loolu ça faut se comprendre normalement éventuellement normalement d'ici week-end bi dañuy def point euh, kii dernier face to face mu jeex Tafa Gueye indi ma fii Tafa Gueye moom mooy comparer roi des arènes ak Lac de Guiers yaawu jaal yaawu jaal plutôt loolu man intéressé wu ma man personnalisé wu ma les débats man li ma intéressé mooy commentaire yi nga xam ne moo am ci roi des arènes bi te mosula am bu doon am boog vraiment de manière kii rek lay doon mais actuellement nii empleur bi mu am tout le mone sait que yéen ñëpp vous xam ngeen ne ampleur bi nga xam ne bi roi des arènes bi am na ko mais nag Modou moo toll foofu ay affaire am toujours nii rek la mën a demee dañu koy nangu rek sante ko yàlla rek waa loolu si Modou lay dépendre parce que man personnellement euh, tout le monde man je ne suis pas trop public affaire làmb yi li euh, ma koy seetaan bëriwul yaa yéen a ngi ci làmb yi du ngeen ma ngi sax si làmb làmb Modou Lo sax du ma ko seetaan Modou ci boppam man du ma seetaan làmbam yàlla dafa def par la force des choses ma nekk soo manager su si obligé ma ñëw def sama rôle manager mais mais bu bu ma pare en général bu 6 heures jotee man pare naa si ñibbi naa maa ngi sama kër donc nekk manager wu Modou waaw.

ndax xel du daal tey ñu jox ko Tapha Tine comme euh, loolu mënaguma ci prononcé wu. je vous dis que am na yoo xam ne mënaguma ci prononcé wu man mën naa nekk manager mais nag mënumaa jël ay décision yoo xam ne majeure la il faut que ma toog ak Modou ak staffam yaa ngi dégg parce que actuellement nii Modou dafa am plan bu mu war a tegaat pour euh, euh, comment dirais-je roi bi rester si moom suñu objectif xam nga mooy lan. mooy woon jël roi des arènes yàlla def na atteindre nañ ko li des nag mooy ñu maintenir si roi des arènes bi donc tey dañuy toog ñu waxtaan defaat beneen plan de carrière parce que mbër mënul tëb rek ne man euh, hasardeusement ne damay bëri kii damay bëri kat ñu ñëpp léegi actuellement ñëpp xam nañ ne gars yi c'est tous des professionnels dañuy toog xool xool c'est cela ñenn rek ñoo dul kii mooy ñi nga xam ne ñii tey seen bët rek ñu ngi ko teg si roi des arènes mais a jaar dégg nañ ñoo xam ne ñii barke démb lañ nekkoon roi de arènes tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi réclamé waat pour bëri roi des arènes ah mais yéen a ma gën a xam loolu yéen yéen a gën a xam xam nga tey dafa am ñoo xam ne ñii tey seen bët ci roi des arènes rek rek lañ ko teg et or que am na yoo xam ne warul mën a nekk yaa ngi jóge ci roi des arènes ñëwaat ne damay may waat revanche roi des arènes mais quand nañ nañu nañu logique tuuti waaw noppalu logiquement laa wax logiquement Modou dafa war a noppalu parce que yéen ñëpp am na ko ko fi wax sànq mu ne Modou amul benn vie amul benn vie euh, waaw kay xam nga Modou dafa sonn sur les plans de te yéen a ma gën a xam li may wax benn année bi nga bëri si ñaari yoon ban vie ngay am yow dem nga fi Espagne ah mais li mu wax la ñaari baat non il faut ma leeral waaw il faut ma leeral la loolu euh, bàyyil ma terminer ak kii d'abord euh, comme li nga wax Modou objectif am ci làmba ba aajam jot au moins am na ay projet koo xam moo Modou xam ne vraiment bu sañoon tey tey tey tey bu projet bi yëpp taxawoon sax mën na bàyyi làmba ça c'est clair parce que aussi nit ki aussi da nga am ay ambition xam nga li ma te effectivement moo du am ay ambition am na yoo xam ne yëg ngeen ne am na yoo xam ne action yoo xam ne jéemoon na ko def ak tout ça ci lu ne jarul sax ñu dugg dans les détails mais tout le monde sait tey làmb métti na méttiwaay boo xam ne bii ku am lu ko gën dañ ko def donc foofu loolu loolu loolu laa lay rassuré je ne dis dina ko bàyyi tey dina bàyyi suba mais li ma wóor mooy que ne Modou bu amoon li mu bëgg ay projet bu taxawoon dina jël làmb ji teg ko liggéey liggéey am na beneen question bu ci tegu am na lu mu soxla quand même Modou soxla na repos comme je l'ai soxla na repos vraiment c'est pas exclu bon comme waxaguma ak moom nag ci loolu jour yëpp ñu ngi gisante mais waxaguñu si affaire boobu parce que fi mu ne nii dafa tollu si repos fi mu ne nii bu seeti yoon ñaari jabaram je pense mooy gën période bi ñu toll nii dund ak dund vie de famille am tuuti écarté wu ci làmb ji tuuti tu vois démb nee na man dégluwuma rajo liiruma journal peut-être yenn kii ngay jaar si internet bi rek laay xool parce que woon naa wax ko point de presse bi tu vois xamal ko object euh, li nga xam ne lii mooy vraiment objectif bu point de presse bi mais on en a discuté brièvement non c'est ça quoi mais ñaari jabar yi nag yee entraînement la doon def comme dafa waroon dem entraînement euh, te je ne pense même pas que kii ne États-Unis gisante nag moom parce que moom bu duggee si préparation presque du gis ak jabar moom du dina dem États-Unis ba ñëw jabar gi nekk États-Unis te duñ gisante duñ nekk sax bokk sax dëkk yu ne bon donc euh, oui c'est sûr c'est sûr waaw waaw loolu euh, comme li nga wax rek euh, tu as raison ñëpp constaté nañ ne avec Balla Gaye peut préparation bi parce que dafa changé woon destination quand même parce que Modou mu doon entraîner aux États-Unis am ay coach ñu koy jox ay kii ñoom ñoo ko doon woo di ko defal benn plan de travail boo xam ne moom doon def bon pour cette fois-ci am ñu ko conseillé au niveau de l'Europe Espagne tout ça am na des choses yu nga xam ne aussi c'est mu dem fa ça n'a pas marché tout le monde sait que n'a pas marché préparation bi vraiment ni mu ko defe woon ñëpp xam nañ ne baaxul donc tey nit ki booy liggéey aussi da ngay avancer xool li nga xam ne lii peut-être moo lay kii bon si la contacté moom ci boppam moo contacté vraiment ay coach yu ne foofu waxtaan ak ñoom ñu ñëw la ko foofu te effectivement on a vu le résultat loolu moo indi peut-être changement de destination bi ndax préparation moom préparation rek la ñun amul préparation euh, Balla gay amul préparation Eumeu Sène préparation yëpp daan la war a doon loolu daal mooy li nga xam ne lii peut-être vraiment moom la ñuy kii quoi takku na de ah d'accord loolu moom. lu naqaree lu naqare lu naqaree évaluer la non dafay jafe dafay jafe c'est difficile mënuma ko estimer parce que bu ma ko xamoon naa la ko wax franchement mais je ne sais pas ko xam ou bien bàyyil bàyyil ma dem seet sama agenda bi après may wax la aha ak Modou Lo kenn mënu leen a parce que benn il est obligé de le faire d'autant plus actuellement dafa yor loo xam ne lii tey vraiment mooy titre roi des arènes donc war na wax ak presse bi day wax ak presse bi moo du du bañ loolu il faut mu wax ak presse bi ça c'est obligatoire ne vous en faites pas jarul yàkkamti dina waxtaan ak yéen avant muy dem si ñaari jabar yi bon donc tey je pense que c'est très bon euh, salle bi tàng na trop maa ngi leen di jégalu vraiment di di di conclure di leen remercier d' abord parce que woote ñu wuyu la vraiment aussi mm, war nga remercier ñi nga xam ne ñoo la wuyu si pour génne li nga xam ne lii mooy li nga wax. parce que presse vraiment yaakaar naa ne dafa am rôle bu am solo ci làmb waxuma sax làmb may ci lépp loo xam ne li moom ngay def vraiment presse daf si am solo lim peut-être waroon naa ko mën a commencer euh, dañ jógee ci combat. ak Eumeu Sène euh, ñu am ñun lu nekk si ñun loo xam ne li peut-être transmettre nañ ko Eumeu par l'intermédiaire de son manager mu doon loo xam ne lii aussi war nañ ko wax euh, da euh, profondément dañuy remercier Eumeu Sène ñun personnellement il faut ñu remercier Eumeu Sène parce que pour beaucoup de raisons de première raison bi mooy d' abord moom mooy woon roi des jox ñu chance pour ñu bëri ak moom donc tey loolu ñun mënuñu ko fay parce que bu ko neexoon mu ne du ma bëri parce que même bu ma amee ne revanche sax mu ngi jóge ci défaite donc tey loolu tey ñun dañ am reconnaissance boo xam ni war nañ ko j'ai essayé de l'appeler malheureusement jotuma ko mbëri moom après làmb jot leen day xaw a jafe j'ai soo son manager waxtaan ak moom pour mu ne na ma li nga ma wax teg teg dinaa la ko transmettre la ma ëmma euh, du ma ne moo gën a sportif si làmb ji mais ku sportif la donc tey ñun dañ am tey pour d'abord masawu ko ci li ko dal parce que combat bi xaw na metti si moom euh, ñaanal ko tey mu am wér prompt rétablissement euh, donc li ñu war ñun parce que am na temps toog naa ak Modou ñu jéem ko pour jot ko directement pour wax ak moom mu teg moom ak remercier ko si geste bi mu def parce que gest bu noble la parce que tey ñun ñaa ngi naan Modou mooy roi des arènes mooy choisir bu ko neexoon du choisir roi des arènes donc gannaaw yàlla bu nekkee roi des arènes moom mu ngi ci parce que bu ko neexoon daan nañ ñu naan nit ñu daane ak yëpp mais terewul mu préparé wu sérieusement ñëw affronté ñu te xamoon na ne ba mu ñuy affronté c'était pas évident que daf ñuy daal ndax làmb kenn xamul donc côté boobu tey ñun dañ ko si remercier infiniment de parce que très sincèrement dafa am mérite ci côté boobu ñu doon ñaan tey moom bu ko yàlla mayee wér vraiment euh, ñun suñu bopp lépp lu ñuy def dañ ko si associé et tout le monde a vu que ñun presque féete parce que gis nañ ni mu demee donc euh, suñu nawle la vraiment li ko dal dal na ko euh, war nañ tey ñun au moins xool état am kii ko nemmeeku ko parce que après tout adversaire bu benn 17 rek la woon ëmm ku xam ëmm ak Modou xam ne ay gaañ lañ ma sa nekk ay xarit lañ ma sa nekk gis nañ ëmm Modou Lo di bëri mu génn di ko soutenir publiquement ñëpp di gis Modou aussi loolu nekk ci moom mais làmb nag mooy li nga xam ne lii peut-être mooy boole ay nit ah, mais nag boole boo xam ne bii ñun ñëpp on comprend que ne euh, dañuy bëree ñoom ñooy joxante xaalis il faudrait que ñu mën a bëree mais bu ñu paree vraiment pare nañ bon ñun amaguñu benn client ah, ñun non euh, tout le monde sait que Modou affaire u cachet amu ci problème je pense que dama lay renvoyer si promoteur yi yi nga xam ne ñooy discuter ak man combat mooy ki gën a yomb discuter si si te je pense que loolu euh, bu ngeen demee ci promoteur yi waxtaan ak ñoom kenn par kenn ñi tëgg combat Modou Lo yëpp loolu dinañ la ko confirmer ñun dem nañ ba wàññi kase 12 millions. si suñu kase boo xam ne dañ ko discuté woon bu pare voilà Moustapha Diop ñu tëgg làmb ji bu ngeen demee si moom ngeen xool ko faveur ba ñu ko defal donc yooyu yëpp ñun làmb moo ñu intéressé affaire kase nag yéen daf leen intéressé ba nga xam ne bi tout le monde nous en parler en général du ngeen joxe fo information bu baax je vous dis que c'est-à-dire que journaliste am na loo xam ne war nañ ko xool yaa ngi dégg xam nga déjà yéen kase wu Modou Lo kenn joxewul le vrai cachet kenn joxewul le vrai donc am na yoo xam ne il faut que ñu di si def waaw bu làmb passé ngeen di soog a jot information mais toujours da ngeen di joxe ay chiffres yoo xam ne ku ko gis day rey non yow da ma laaj mais confirmé wu ma man du ma confirmé parce que man kasi jàmm du ko dévoilé